suma mbokk Cheikh Alpha di ziyaara bu baax di nuyu almufakkiri suufi bi ma fekk ci bunt bi ak boroom xam-xam yépp waaye di na yoo Cheikh Xaadim ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne am na ko dëgg-dëgg man dama kontaan ba jéggi dayoo ndax déglu moon waxtaan bi ci group bi waaye gannaaw bu ma ko yónnee léegi laa ko doog a déglu man la nag faaw ma sànni ci sama kàddu kàddu yi ngërmandi rek la te wane ne nii la mooy xam-xam dëkkut fenn bu kenn wax ne sufiyanke yi ñoom ñoo war a gën a xam tariqa biñ ne yoon wiñ nekk ndax ñoom ay suufi yi lañ wala nga ne siyaa yi ñoo war a gën a xam yoon biñ nekk ndax ñoom ay siyaa lañ wala nga ne ahlu sunna wal jamaa wala nga ne murid yi ñoo gën a xam yoon wala tijaani c'est la première fois ma dégg tey Eh, ab taalibe Cheikh Ahmadou Bamba mu waxtaan ci groupe ci Cheikh Ibrahima wax ju mel ni nga wax yombul sax nga dégg ko ci wax at yu bari ci ñi ma xam di ma topp dañuy gis ne damay waxtaan ci Cheikh Ahmadou Bamba lu bari léeg-léeg sax ma uute ci ak ñenn ñi gëstu ay téeréem waaye fekk buñ demee ba ci biir dañ xam ne la wax loolu am kon su ma gisee tey nga def jeexu boobu te loolu bi ma koy def Euh, dama koy def ngir li Baye waxoon wa ubri sulil jiilil jadidi misaala ngir wan génération montante yoon wi donc soo ko defee di si njaboot ci ñun dëgg-dëgg euh, dañ koy rafetlu waaw cent pour cent lañ koy rafetloo donc suñu taaliqa mooy sant la gërëm la ñaareel bi ci tege mooy euh, dëgg litam li nga wax Cheikh Ibrahima moom ku ko xam-xam ne mission am ci wàllu ooteem lu leer la wax na ci risalatu saabiha saabiata asra min al wasaaya nga xam ne dafay tolloo passe quarante ci jawaahir rasail wax joo xam ne dëggal na tënk na li nga wax yépp dafa wax ne waalam ya axi anni daiman mustaqilun bil amri bil maarufi wa nayi anil munkar bi lisaani wa xalami wa xawli wa fi'li mu ne xamal yow suma mbokk ne man Cheikh Ibrahima Niass dama soxlawoo saay bu nekk digle lu baax tere lu bon loolu mooy sama itte ma di ko def nag euh, ci sama làmmiñ di ko def ci sama xalimba di ko def ci sama wax ak samay jëf kon gis nga ne dagal na lépp lu yëngatu ci moom na def ci digle lu baax di tere lu bon ñaaral bi ci tegee mu ne xamal itam ne ana la ahmilu nnaasa illa ala taqwa allahi fi sirri wa jahri bi imtisali awamirihi wa ijtinaabi nawaayi والاجتماع لصلوات القمصة وقراءة الوصيفة وذكر الله سرا وجهرا وتلاوة القرآن والعمل بالطلب العلاني متكسنا نغا خمنا يتم man ñi ma topp ak mbooloo mi may oo du leen en mukk lu dul ragal yàlla ragal yàlla rek lay digle ci lu feeñ ak li nëbbu ci temmoo ay ndigal ak bàyyi ay tere teet li yàlla tere ñu bàyyi ko di leen digal it nañuy dajee di julli waxtu juróom yi nañuy dundal jàkka yi julli waxtu juróom yi ci jàkka ja di leen digal it nañuy jàng wasifa da leen digalit nañuy tudd yàlla lu baari ci lu feeñ ak lu nëbbu nañuy jàng alquranul karim fuñ mën a toll waaye nañ sàkku itam am lu dagan nañ sàkku alal ju dagan kon gis nga euh, buggul nit ki gaw ay loxoom wala di dund ci toog muy dox wala di dund ci dara loo xam ne dafay sàkku alalam fekk loolu araam la mu teg ci nag ne فمن فمن امتثل أمري فلا يستقل إلا بهذا ومن لم يمتثل أمري فما أنا بصاحب سيف mu ne képp koo xam ne man Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu temmoo nga sama ndigal mooy li may digle yaa ngi koy def li may tere yaa ngi koy bàyyi sa soxla yépp ci lii rek lay nekk mooy li ma digle waaye nag koo xam ne déggoo suma ndigal nee na man du ma borom jaasi kon nit ki déggul suma ndigal ak lu ma jege jege nag wax dëgg duma jël jaasi di ko def dara man digle naa rek te loolu laa man mu teg ci ne wa ma ala rasul illa al balaax mubin mu ne ab ndaw daal jotal rek ku ko war te man jotal naa e, mu ne teg ci ne yàlla waxoon ne yenentu na ko wa ma anta alayhim dégg nga bi jabaarin yow doo ku leen di agressé wala nga leen di dóor wala nga leen di fitnaal yow daal na nga fàttali rek fa sakir bil qur'ani e, dégg nga من يقاف وعيد القران دال نانكو فاتلي جانغال كو كي راغال سمك تكو باي نك تي سوفو با فالحاصل لا الو جهدي في نسيئتي من يسمع نسيئتي من لي ام موي من دوما دنتلو موكو دوما غاتاني دو موكو ci tag wala ci laay biir kon képp koo xam ne da nga dégg sama laay biir ci jaamu yàlla yi walladina yasmauna lii laa yura fihim wala yusmau illa ma yurdi llaha wa rasul wa man laa yasmau lii walaysa bayni wa baynahu shay mu ne ki nga xam ne daf may déglu kooku moom wala nga dégg ci moom lu lu yàlla gërëm ak yenentu mu ne ki ma dégluwul nag sama digganteeg moom dëgg-dëgg dara nekku ci bëgg euh, nit di liggéey bokk na ci li nga xam ne taxawaayam la woon donc ñaax nit ñi ñu bañ di laaj addiya te loolu yaakaar naa ne tey soo demee ci askan yu bari am na sët yoo xam ne ci yenn famille yi dañuy jàpp ne war di laaj addiya rek loolu mooy war a nekk seen taxawaay ñaareel bi taalibe bi am addi yu ju bari jum joxe sax ay njuumteem kenn du ko gàgganti di lekk li muy wax sax bokkul ci tarixa boobu bàyyi daan na ko bañ amna ben lettre bu nek ci jawaahir rasaayil ba tey di lettre euh fuk ak ñaar ci ndénkaan la xamne mo ne euh tolloo page vingt neuf bàyyi waxoon ne ci benn ci leetaram boobu ne ci laay biir bu waxon waxoon ne nasihatun na lakum mahsara awladin min asurafa alladhina naxwu nahwa suufiya wa hiya ittixaasu irfa لكسب العلال وقد حت كسب الدوران بمجرد السؤال والطمع ورفع الهمة عن تلك العرفة الدنيا ولتكن عرفتكم في السنخات تجارة أو كتابة أو تعليما أو عملا لا, لا, لا سؤالا وطمعا ومن لم يجد سبيلا إلى أحد تلك الأشقال فليرضى بالفقر والقناعة ويتصل بالعلم والذكر lii la leen jublu mu ne laay biir la boo xam ne maa ngi leen koy jox yéen ndaw yi yi nga xam ne ay sërif ngeen nga xam ne dangeen di jublu sufiyanke yi maa ngi leen di wax ne ut leen métier moo xam ne dangeen ci fàggu lu dagan ngeen dagg ci ak làcce di wër ci biir kër yi ak ci sëriñ si di làcce addiya ak it ngeen di xemem na ko bàyyi ak tamit yëkkati leen seen itte ci métier bu suufe moomu métier laaj addiya mu ne métier bu suufe la mu ne na ngeen am métier ci Sénégal na nekk seen ci commerce def leen commerce wala boog ngeen def euh, kitaaba mooy ngeen di bind ñu leen di fay wala taaliman ngeen di jàngale wala sax im lan ngeen di yenu ñu leen di fay waaw ngeen def baara ñi na waaye bu leen def mukk laaj laa su alan wa bu leen di laaj ak di xenam من لن تكن ومن لم يجي سبيلا الى احد تلك الاثقال كو خمنا نك ييما وخ امولو شي بن يون من سبوبا نك كوكا فليرضى بالفقر والقناعه ويستقل بالعلم والذكر ندويلو نياك اك دويلو مصولو خم خم لي تاميت بو سيتي ا آه، سرين بي نيم كو دون ديغال mooy ñi nga xam ne ay surafaa u lañ beneen bi itam dégg naa nga wax wax ju am solo eh, xëy na ci lettre bi nga wax lettre bi bàyyi bindoon eh, ñaari taalibeem yooyu nga xam ne dañoo amoon problème waaw xam naa boo demee ci jawaayir wasaayil ci lettre ñetteel bi ci wasaaya ci bunt bi wax jooju fa la nekk آه، موي في موي وخي ني اسناني ليس مني ولا من الطريق ولا بوك اسنين ليس مني ولا من الطريق في شيء مجزوم لم يسلك وصالك لم يجزب بقي على عالهما ووقف على سيرهما تلا وخي واني ساني كما علمت من اراد ان يكون معي في عالي فليسلك طريقي في الأقوال والأفعال بامتثال الأوامر واجتناب النواهي في الظاهر والباطن والتعطف والتسوق إلى وصول إلى مرضاة الله ورسوله أما من ينتسب إلينا ويرتكب شيئا من مخالفة الشريعة المطهرة الصريفة باختيار المحرمات وترك المأمورات فأزهد الله وأزهدكم أني بريء منه اللهم إني بريء إليك مما سنى هؤلاء ترى لوغ لا يجوز يجوج mu ne leen man sama mbir comme ni ngeen ko xamee ku bëgg a nekk ak man daal ci suma xaal bi ma nekk bu fekkee ne gërëm nga ko ba bëgg a doon suma taalibe nag na nga sóobu sama yoon wii ci wax ak jëf na nga sóobu ci defe ndigal bàyyi tere ci teet lépp luñ tere ci saayir ak ci baatin te itam saa yu nekk ngay mar ak sopp yegg ci ngërmandeel yàlla ak ngërmandeel yenentu waaw lii daal ku bëgg a ànd man ci li ngay nekk mu ne koo xam ne nag da ngay askanoo ci ñun da ngay toggoo dara loo xam ne dafa uute ak sare abu laab bii sell bii mooy ngay bëtt ay xaraam di ko def wala nga bàyyi ndigal yi muy julli wala bàyyi woor wala bàyyi li la yàlla digal bàyyi nee na maa ngi seedaloo yàlla di leen seedalee seedaloo yéen ñi nga xam ne yéen a liir suma mbind mi wala yéen ñi nga xam ne yéen a ma xam wala yéen ñi ko fekkee ñëpp maa ngi leen di seedaloo ne ni bari un minhu waa jooju bàyyi naa ko te itam yow yàlla allahuma inni bari un ilayka mimma sanaaw kon li yi di def man dañ tëlu naa ci loolu nag lu li ko waraloon mooy daf ci amoon ñenn ñoo xam ne dañ doon nekk ci yenn yi bëgg a askanoo ci moom donc loolu la doon wax na sax ci suufam ne eh, مانم ويوسك أن أرفع الإذن عن كل مقدم يختأم بحضرته المحرمات ولم يقم بما وجب عليه فإن عجز يهاجر إلى الله ورسوله وإلينا والله ما أوقف سير أولئك حتى رجعوا إلى دينة تأنس بالحوادث إلى طول أهدهم بنا ومن أدرى معنا في كثير من الأوقات ينسى تأم سأواتي فإن أنا صبانا سقارا قد نسوا تأم سأواتي حتى إن منهم من ينسى زوجته ولا يأتيها إلا بالإثم والإكراه هكذا تلامسته والخير لا فلا بد من رجوع إلى الله بالتوبة والامتثال والاجتناب والزهد والورع والتعلم بمجيخ من قوس أختوتي مدرس النانغو ننغو لجاكا nangu jaasa ci bépp muqaddam boo xam ne sa xadara dañ fay def lu haram te jubbanti woo ko donc nga bàyyi ci noonu rek xawtu na ma deel sa nangu sa ndigal mu ne su fekkee ne euh, dalaa lott ci mën a jubbanti loolu gàddaayam jëm ci yàlla jëm ci ñun mu ne ndax taxawaayu euh, ñi nga xam ne seen sayru dafa taxaw ci yàlla bañ dellu di wéttale ko waxtaanu àdduna ak i xew-xewam ñooñu dara waralu ko lu gëj goo xam ne gëj nañ ko ci ñun mu ne ndax ñun kuy teew ak ñun waxtu wu bari danga dem ba fàtte cafkaak lekk sax waxuma laak nag ngay soxlawoo di def lu araam mu ne fii ci Medina am na ndaw ñoo xam ne ay xale lañ yoo xam ne fàtte nañ bànneexu bànneex cafkaak bànneex ba kenn ci ñoom sax dana fàtte soxnaam ba du ko dikkee ndare bu dañ koo dégg nga forcé ngir mu doon ko dikkee mu ne ñii ñooy sama taalibe waaye ñu dul ñi duuñ samay taalibe kon loolu yëpp ak njàngal la beneen bi mooy wax na ne qad alimtu an allaha jaala al istixaalu bi xayrihi xawdan wala aban mooy bi muy dénk imam Thierno Siam ci première lettre ci jawaayiru saare boo gisee ma indi tomb yooyu tuuti mooy rafetlu waxtaan bi ak wane ne dawaa sëriñ bi moom donc ci jaamu yàlla rek la ak itte yi nga xam ne wax nga ko ndax ba mu ko waxee daf ko ne ko wax rek jamii al min muamalatika lil axi wa nafsuka min jumlati al xalq yàlla yëpp na nga leen ci jëflante bi ngay jëflanteeg yàlla te sa bakkan bi ci la bokk mu teg ci ne ko xad alimtu an allah bi xeyri xawdan wa laaban wa yaqul laka seyxaani seyxuka fi zahir ijaalu kitaab wa sunna باتن شيخ أحمد التجاني رضي الله عنه ومعك دائما في الوسائل وسائل فقط والمراد ما قلته لك ما نجلي دينك لا خمنا أنا صخلو ولا نلود يا الله مم خمنا كو خمغو كنا لولا أي كاهن لا أي فلا من ياري سرني لك سرني سائر بدفكم يا القرآن والسنة كفن كون القرآن والسنة لما مشغل بلاين waye gannaaw ci muy denk talibem la muné ko sa serigne am ñaar na nek cheikh tidiane waxut pour wane ne moom ku dàq rëy la ci boppam hmm. mu ne ko te cheikh nga àndegee waxtu wu ne mu ne wasaayil wasaayil la rek waaye namel bi mooy li ma la wax donc loolu lu jar bàyyi xel la kon daal ci gàttal eh, waxtaan bi am na solo am solo koo xam ne jéggi na dayo sëriñ bi nag yitteem ji mu amoon ci lislaam yitte la joo xam ne eh, ay jëfam daf koo firnde waaye yitte la joo xam ne waxam daf koo firndeel waaye itteel la joo xam ne masalan ak njabootam nam leen yaree sax daf ko itteel daf ko daf ko daf koo macha allah kon nag am nañ kontaante bu baax a baax xam naa ne daal ñun amuñ dara lu ñuy corriger ci waxtaan bi wala luñ ci li fi lurul daal dëgg-dëgg kontaan nañ waxtaan bi jaar na ci yoon te itam hakada fal yakun donc nii la war a mel képp koo xam ne taalibe la boo xam ne da ngay gëstu xam-xam maa ngi lay sant bu baax di la gërëm kontaan naa bu baax a baax maa ngi sant Thierno Alpha bu baax ndax lii lu am solo la donc xam naa ne euh, bëgguma guddal maa ngi jéggalu ndax ñàkk jot tax na ba grup bi lu bari du ma fi mun da duggu waaye tew léeg-léeg rek ma am jot topp sant nañ bu baax gërëm nañ al mu fakkiru suuf yi maa ngi lay ziar bu baax di la wax ne namm naa la gis naa la dégg lool